c'est la référence. asalaamaaleykum mbokk yi daal di nag jàmm ci xibaar yi yéen ñi tàmmu la 90 international bu ngeen taxiloo tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci naqar ak njàqare la askanu Saam ak li ko wër dëkkee dimanche ba tey ji ndax ñàkkum ndox gu tar ga ñuy jànkonteel boole kooku courant ngay xuy xamaj guddeeg bëccëg ña nga yuuxu wàllu jëmale ko ci kilifa ngànk dëkk bi daa ngeen leen dégg ci biir xibaar yi ñeel waajta yu élection gox yeeg goxaat yi bu ci nekk rek yaa ngay waajal sa bopp Mbacke wàkku nguna daa ngeen ci dégg Cheikh a Dieng ana kan moo nar a jiite liste Bokk Yaakaar fii ci Kaolack kenn ku ne yaa ngay fëgg sa dënn naan bana waaye ndaw ya bootu ci gannaaw Diène Farba Sarr jaaree ko ci Ousmane Noël Dieng ñoom la xam ne mooy Diène Farba Sarr képp moo ko yellool door nañu seen ak tournée ba ñu duppee Kaolack sama yitte daa ci dégg Cheikh Tidiane Diagne te bitim réew daanu fa fekk Cheikh ci ànd ak Serigne Moussa xam fàcc gi gannaaw bàkk bi lay Le journal. Ndeye Khady dal leen ak jàmm mbokk yi yéen itam la référence internationale kaddu gi di bàyyeekoo fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alioune Mor Lo El Hadji Libas Mbaye moo janook man ci wàllu xel léegi ba dégg-dégg bi man di leer nañ leen ko waxee noonu lañ koy dooree ñàkk ndox ma ngi wéy ci kaw lekk ba léegi ci yenn ci ay gox yu mel ne Sam ñoom ñu ngi koy jànkonteel dimanche ba tey jii gisuñu ndox robine yaa nga wow koŋ na nga yuuxu wallu nag jëmale ko ci njiital kër gi di Sen'Eau Cheikh Tidiane Sarr noonu la la ñuy dundee seen ñàkkum ndox mi boobaak léegi toll na ci ñaari ay bés askanu saam ak lu ko wër. ndox ba tey amuñ ndox. teen ya la ñuy wër ñun suñ kër amul robinet damay rootaane si koñ ba koñ ba amul ndox dimanche ba tey ñu ngi nii balaa jëm nii. ban la mbaa ah, xaw naa xëcc de. sonn rek ñu nii sonn rek si fekk leen ci naaj bu tàng bi ci barab bi am ñu yor ay paan di commencé uti ndox ca teen ba ñii yor ay bidon ñu ne mënatuñ ko muñ ndax sonn nañ ci jëndum ndox mi. roqee bi ñu ngi bëgg a naan naan tëñi sonn nekk jaboot see war a jàngi war a xëy sël mu war a sangu amuñ dara ngay wëdd taxawaale fu nekk ngay cos cosi di jëm métti na torop Sénégal métti na quartier Sam nekk quartier bu am solo fii ci Medina Baye ak lu ko wër waaye ñu ne nag wàllum ñàkkum ndox rek moo leen sonal ba tax ñu yuuxu wàllu jëmale ko ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum ndox mi di seen o fii ci kaw Kaolack. fii daal ñu ngi dimanche ba léegi amuñu koñ bi si Habib Thiam kër Ndexati Sadio amuñ ndox amuñ dara ñoo ngi nii fóotuñ sanguwuñ salmuwuñ dimbale leen ñi. ah jigéen ay paan ak lu nekk. ana moom itam jigéen ñaa ngi di wëndeelu teel ba daa sori ba dee ñu ngi ba léegi nalaw sax duñ ko mën a def dimanche ba léegi chaque jour waaye duñu am dox sax ñun kay nii la ñu fanaanoo rek taxawaal ba set ñoom ñëpp di jàmbat ndox ndox moomu nag nekk ab taabu góor ci quartier bii di Sam ba tax ñi fa dëkkee ne mënatuñoo muñ lu nu mel na leen ci kilifa yi jàppale nu mu gën a gaawee Cheikh Tidiane Sarr laata kilifa yi di euh, ñëw nag euh, jamono ji sàmm dara doxatu fa lépp taxaw xale yi jàngee tuñu waaye itam courant nga ñoo yokk seen ak coono ndimbal nag mooy li ñuy sàkku ñu teewlu leen. 3 heures du matin la ñuy yeew di wër ndox dañuy toog ba sonn lay def bala ngay pare fajar suñ doom yi dañuy naajee jàngi bala ñu dem marché dañuy sonn ndax ñàkkum ndox dëgg yàlla xaw ma nag lu tax moom hmm. te ndox moom mooy lépp moom la ñuy liggéeyee sonn nañ nag moom. ndax ku xam ne ndox liggéey moom soo ko amul doo def dara ndax ndox mooy liggéey ndax benn soo mënee da nga naan soo añee da nga raxasu dama lu mu ndox koy def benn ci man damay teg liggéey bi di wër ndox duma am ko defee ci ndox mi amuñu ndox nañu dimbali ci ndox jigéen dafa soxla ndox ndax ndox mooy liggéeyu jigéen nekk dem ci ay teen mooy suñu liggéey bi tardé te ndox mooy lépp ndox dafa bokk ci dund doomu aadama waaw dañuy jënd ndox kay léegi dañuy jënd bidon deux cent cinquante léegi dañuy jënd seret yi cent cinquante wala deux cent xam nga loolu dafa métti man day awa laa tudd sonn naa ci ndox moom damay fanaan tali ba ba set am benn ndox benn bidon sax mënoo koor ci robinet bi te boo bëggee yéegal ndox bi da ngay yéeg a yéeg ba sonn sonn nañoo ndox te ay jaboot lañ li leen dimbali ngir yàlla ñu am ndox sonn nañoo ndox ñu leen gars yi dimbali daal waaw nañu dimbali ñu am ndox moom bi dafa métti torop torop torop torop Ndeye Sadio ni ku baax la daal ni ku baax la ñun saa yu ñu manqué dara day taxaw oo ñu oo rajo bi rajo bi ñëw kaas man daal li may gën a kaas ndox mi ni si gën a jàppale maanaam une semaine nii sam amul ndox courant bi tamit mooy loolu courant bi dem si guddi dem coupé ay 22 heures ba ay une heure moyen chaque jour itam day ñëw dem pour ma gën a jaaxal sam day coupé te mbir na du coupé daal ñuy ñaan yi gars yi ngeen ñëw jàppale baax surtout Pape Demba bi tey ak ku yor na ndox mi yëpp ñun daal loolu ndax boo xoolee événement bi ñëw di des matu un mois dañ jàpp ni si courant bi jàpp ni si ndox mi sàmm moom lu mel moom baaxul wax dëgg yàlla Mamadou Moustapha Gueye la xew ca sàmm xew ca quartier Gawane njëndum ndox gu metti nag la dëkkee ñoom itam boole kook fay ay facture yi ñu jëfandikoowul tax rek ñuy sàkku ngir rek ñu wutal wujju waa seen Sen'Eau bu ñu sukkandikoo ci Ismaïla Camara di kenn ca ña fa yeewoo mu ngi woon fii ci rajo Alfayda li waral suma teewaay fii mooy depuis ba ma ñëwee jóge bitim réew tey la am neuf mois alors chaque jours damay woote di complainte di wax ne amuñu ndox parfois nag ndox da daan ñëw ci guddi gi à partir de minuit day ñëw minuit buñ demee ba ci kanam après mu arrêté bu ñëwee dañuy duy bidon yi et tout parfois sax da ngay nekk ci douche bi di sangu ci sens bi ndox bi jékki-jékki rek arrêté toujours ma woote ba ma ñëwee ba tey maa ngi woote tey sax trois heures du laa leen woo tey pour que ñu indil ma ndox aw ma ndox barki démb damaa jënd ndox tey tamit xam naa dama nar a jënd ndox encore te maa ngi woote suma wootee di complainte mu may wax ne man ndax yaa ngi nekk en règle ma ne ko mais come on yaa ngi nekk en règle loolu mooy lan loolu mooy waxi lan mais yii du ay professionnel man mënuma wax bu baax mais damay ñaan askan bi ñu fexe indil concurrent fii ci dëkk bi fii bu ñu amee ñaari société wala ñetti société la bu ko defee ñuy concurrencé bu ko defee danañ mun a am ndox pour mun a mënuma jëfandikoo ndox comme ni ma ko bëggee chaque deux mois la facture bi di ñëw alors te maa ngi fay facture bi barki démb lañ ma ko indil délai bi jot raisonnable barki démb laa koy doog a gis facture bi toujours maa ngi wootee di complainte quartier Gawane ci wetu poulailler bi zone maraîcher bi parce que man mii suma bopp sax man damaa gas teen suma buntu kër ndoxu pompe yooyu noonu nit ñi dañuy ñëw foofu di kii gune taalibe yi ñoom ñoo ciy foo boo pompe bi dafa yàqu mais sinon ñoom ñëpp suma buntu kër fa la ñuy roote c'est parce que problème mu ndox a Camara problème mu ndox boobee nag waa seen xamle xam ne daañu euh, fexe rek saafara ko laata moo saafaraw nag dañuy seeti waa réseau ONAS ñoom nag am nañu njàqare lool leen leen jaaxal nag mooy dañoo gisatul kenn ku fa dem di def ab demande te mu ne day fayeekuñ ci kenn boole kooku rek di def seen kéemtalaay kàttan ngir jëlee tata ndox yi ci yenn ci ay gox yu mel ne Medina Baye Lamine Sambou di chef de service régional ba seq na ci waxtaan ak Cheikh Ababacar Dieng. mooy régional ONAS Kaolack. waaw liggéey nag avancé na lool ndax extension la woon ak ay branchement extension yi daanaka pare na branchement yi condition la woon mooy da indi sa facture ndox rek ñu branché la soo indee facture ndox bi romb toog nañu quelque temps gisatuñu ku ñëw def demande ñu ne woon lu waral loolu daal bëgg nañu ay médias yi communication bi yëpp ci ko comme ça population bi ñëw ñu defal leen branchement yi képp koo xam ne tuyau bi romb na la boo indee sa facture ndox nañ def étude di branché la te doo fay dara taxaw rek ngir mbedd yi taataa ci Medina Baye yëpp ñu dindi ko waaw réseau bi loolu lay jëriñ mais nit ñi daal ñoo ñëwatul nit ñi ñoo ñëwut tuyau bi fu mu jaar fan ak fan tuyau ba kër Baye tuyau bi daal maaye na Medina Baye bi yëpp daanaka Medina Baye bi yëpp tuyau bi jaar na képp xam ni sa wetu kër gis nga fa regard soo ñëwee jox ñu sa facture dinañ ñëw xool ndax mën nga branché wala mënoo branché ñu branché la du fay dara fu muy indi facture bi service régional ONAS bi nekk euh, wetu sapeur pompier waaw ginnaaw gendarmerie mu ngo a déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñaareelu pàcc bi ñu ngi ko jagleel wàllu politique gannaaw ba mu xamle ne noppi na ngir uh, jiital gune yi ci bopp parti bi moom man jiital AFP di Moustapha Niass ay farandoom nag ca uh, waa Congo ñu ngi ci liggéey bi ngir gën a taxaw bu baax a baax ci jongante gox yeeg goxaat yi waaye itam fexe rek jël lépp la moom téyel ko seen bopp am ndaje la ñu amaloon ci teewaayam moom Cheikh Ababacar Dieng. élection locale yu mujj am ci atum 2014 AFP dafa ñàkkoo collectivité locale yu bëri ci région bu Kaolack yi nga xam ne dafa jàpp ne titre foncier la élection locale yi ñu dëgmal nag du demee ne mu demee woon responsable politique yi parti Moustapha Niass bi ñu ne taxaw lañ fas yéene def ñu ngi ko xam ne ci ndaje gu ñu amaloon ci wàkk nguuna Moustapha Thiam mooy jiite AFP ci gox bi. mais AFP mu ngi si dynamique lépp luy cëram mu jëlaat ko téye ko bokk wala téye ko àndandoo si respect ndax depuis le mars 2018 à Kër Tafa benn résolution boo xam ne le orientation mooy nañ fexe liggéey ba xam ne AFP département Nioro moomeelu boppam la te daf ko war a téye téye bi nag ak lu mu a ba jotee dinañ ko taxaw. dem yëpp y a des candidats potentiels des candidats à la candidature waaye bu ñu see yeggee nag ah, waxtaan lay laaj. fu ci mel ne wàkk nga xam ne fu ngeen dëkk. non wàkk yow ñëw nga fi gisal nga sa bopp du man may wax du keneen man may responsable section bi si démocratie lañ nekk li si xolu nit ñi ak seen xel ak seen làmmiñ bu jotee dinañ ko teewal taxawee ko ni ñu ko war a taxawee. ñu dégg k bu yàggut moom président assemblée nationale daja cadre parti bi xamal leen ne pare na pour jox parti bi gune yi li nag turandooram di Moustapha Thiam ne lu yàgg ci alaaji Moustapha Niass la président Moustapha Niass loolu moo musa nekk yéeneem man bu ko waxee xam naa si dara parce que depuis 2011 la bëggoon a quitté boppu AFP ñu ne ko dañ laa soxla Sénégal dañ la soxla ndaw ñi dañ la soxla mu toog demaat nañ yàggul dara waxaat na même débat bi nañ préparé wu AFP mu ngi si logique u baa ngi nii jaay na carte si section bi ba versé feneen foo dem si Sénégal fépp jaay nañ carte du yàgg dara congrès bi dineen ñëw toog AFP am beneen jiit bu bokkul ak Moustapha Niass nag tekki wuñ ne parti bi dañ koy jox keneen ku koy saax-saaxee wala ku koy moomal boppam mu Moustapha Niass mu nekk fi wala mu wàcc mooy wéy di jiite AFP soppi secrétaire général boo xam ne comme ni ko président waxee du tudd Moustapha Niass waaye nag baatinu Moustapha Niass lay doon toogaayu Moustapha Niass lay doon parce que parti bi nag nu fi nit toll ak loo fi mën a doon rek dañ ko a delloo njukkal moom mi nga xam ne le 16 juin jóg na jël courage am taxaw lancé appel ne dama bëgg tey Sénégal ma bokk aussi ñi nga xam ne dañ koy defar ba yàlla may ko si ni mu ko si may parti bi nag du mooy moolu kenn wax naa ko waxati ko Kaolack 2016 assemblée générale ba fa amoon ñoom nag xamle nañu si seen dajee gii ne muy Taïba Niassène muy Nioro muy Wack Ngouna muy Kër Madiabel ak ku ñu mën da àndal ci coalition AFP du def kenn tëdd liste ku bokkul ci parti jox la cër Cheikh Babacar Dieng desandi foofee ca Wack Ngouna ci wàllu ndaw ñi nekk foofee ca AFP ñoom it ña ngay a fanweeri at juróom-benn moom nag jébbal na leen lenge yi ngir ñu wéyal liggéey ba moom it tontu naa laaju Cheikh Ababacar Dieng. xam nga li wolof naan bëy day weesu te ñun ma xam yoo xam nañ loolu parce li ma doon xeex démb pour être conséquent avec moi-même naa jël place bi jox ñu ma gën a féete ndaw parce que samay rakk leen te wóolu naa leen am nañ formation requise pour diriger tey parce que ñu bëree bëri mën ñoom ñoo nekk au national xam naa leen bu baax xam naa a doxee jiite lu bëree loo xam ne jàpp nga mais ñu ko doon jiite soo xoolee réunion bi tey soo ñëw bu donc ñoom gis nañ ñu liggéey apprécier nañ ñu bugg bugguma def ñi ñenn yi di def booy dem da yóbbaale yeneen génération parce que fi defee deux ans rek wala trois ans dina am xam ne dinaa leen yóbbaale te boobaa du ma gore moo tax ma jël sama décision bàyyi kuréelu ndaw yi ndaw yi ko ma dem vraiment jéem a mag ñi moom bokk de bu ne waaw mais amul problème surtout au niveau de Wack Ngouna fii moom xam nañ ñu affaire yi demee parce que on président de section am nañ responsable des femmes tey damay jël poste comme société yàgg nañu taxaw gis nañ position bu ñu am si ñun donc loolu du problème si ñun am na loo xam ne aussi du ñu xaar yu jox ñu ko ñooy dem xeex ko pour jëlaw suñ bopp parce que on est en politique quoi. wàkk nguuna donte nag rafetlu nañu liggéeyu kën jiitu réew mi Macky Sall taxewul nag nañu ko seen ay jafe-jafe bokk na ci rek ngir rek ñu wéyal liggéey ba waaye itam fexe rek mattal ko muy ca seen dex ba di vallée waaye itam wàllu courant ba itam ci yenn dëkk yi ak seen yoon bi nga xam ne rek tàmbali nañ ko ñu ngi leen koy defaral ña ngay sàkku nag ngir ñu àggali ko ba léegi ak Cheikh Ababacar Dieng yoon bii nga xam ne ñëwoon nañ lancé ko fii boobaak léegi mu ngi mat at ak li si topp mu nekkoon mbégte boo xam ne wax dëgg yàlla sagaloon nañ ci le président Moustapha Niass muy yoonu wax du ma wax dafa tagga témbe mais damay taxaw xam nañ ne entreprise bi ko yor mu ngi woon côté Nganda mais comme nawet bi li si des yàggatul te du xaar ñu ngi ñaan nu mu gën a pour mën a dimbale population yi gannaaw buñ gërëmee nag président de la république parce que si wàllu infrastructure si lu rëy si Sénégal waaye nag wàkku ngu na ñu ngi xaar wax yàlla yoon boobu ñu mën ko inaugurer nu mu gën a gaawee lii dafa nekk benn source d'économie rural dafa war a mën a suqali koom gi waaye jafe-jafe yooyu nag te buñ di nelaw le président Moustapha Niass am na taxawaay yu mag yoo xam ne santoon nañu ko si ñu ànd si ak suñu ñees suñu camarade de parti mademoiselle Anta Dieye ba loolu juróon le président Moustapha Niass ñëw fi ànd ak euh, waa OLAC ñu jël ay engagement bi si njëkk mooy ñu fexe ba jën yi dekkiwaat ba fii dootuñ soxla benn jën loolu moom déjà financement bi génn na wàllu dindi li nga xam ne mooy mbasi mbasi bi deux cent hectares doon nañ ko jëriñoo mais fi ne presque cent bi jël na am na programme boo xam ne tamit état du Sénégal def na ko ba assemblée nationale voté nañ ko dugal ko ci budget ministre de l' et de l'eau parce que ñoom ñoo ko seq pour que ñu defar ko ba appel d' offre bi lancé nañ ko. pour naa ne jafe-jafe boobu day jeex léegi ci wàllu courant bi gannaaw bu ñu gërëmee le directeur général Pape Demba Bitèye mu ngi def liggéey bu rafet a rafet mais ñu ngi interpellé autorité étatique yi ak autorité locale yi ñu président Moustapha di waxee Saabu pays la Saabu ku ko xamoon démb historiquement dafa nekk foo xam ne économie buñ ko doxalee mën na indil Saalum lu rëy rëy te ba léegi amul courant Koutango ku ne xam ne ne dëkk bu am tradition la dëkk la boo xam ne li ñu borom dëkk bi da buur bu nekk wàcc na fa te tey ba léegi vraiment courant bi mu ngi des foofu mais daal wax dëgg yàlla fi ne pour une commune qui compte soixante cinq villages ba léegi nii et il va défendre ça si pencum ndaw réew mi waaye daal ñu ngi ñaan le directeur général Pape Demba Bitèye nu mu gën a gaawee ñu fexe daal dëkk yooyu ñu taal ko comme ni mu taalee yeneen dëkk yi nga xam ne am na fii ñu siy sant yàlla. laata mu ko taal nag dañuy dellusiwaat fii ci Kaolack des ci mbiru politique ba léegi junjoon nañ leen kaw Ousmane Noël Dieng door na bi mu duppee Kaolack sama yitte fukki fan nara dem ba fukki fan ak juróom-ñeent ci yi si nag fas yéene wër gox yi safonte kaskan wi ñaax leen itam ngir ñu xam ne rek seen ak maire di Diène Farba Sarr képp moo yelloo maire bu Kaolack Cheikh Tidiane Diagne. xool yeeg xalaat yi bëgg-bëgg ba ci njàmbatu politiciens yëpp jamono ji mooy xam kan mooy nekk tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñeel bokk moomee lii rawatina diwaanu Kaolack waa mouvement des jeunes derrière Diène Farba Sarr moom lii la ñu wax. toute la jeunesse kaolackoise réclame le grand retour du ministre Diène Farba Sarr c'est le plus légitime c'est un intellectuel moo créé parti bi IFI ànd ak moom ànd ngor pur Saloum Saloum suñu kilifa président de la République Macky Sall waaye ñu ngi attiré attention ne ko dina la bàyyi ci décider le plus légitime ki nga xam ne Kaolack waaye moom lañ bëgg jël formation et donc président Macky Sall nay diisoo nay waxtaan ba ñëpp trouver point d'entente mu doog a def li muy def. Kaolack sama yite concept bu bees di ab tournée ñu koy mandargaal ñoom ñi bokk ci kuréel yi nu mel tàmbaliku nag ni ki démb fukki fan ci weer wi ñu nekk ana lan mooy njëriñu tournée bi nu mel Ousmane Noël Dieng indi na ci tontu. liggéey teg muy base ma ne nag loolu duñ ko nangu kenn ay bukki ñëw moo waraloon tey ñu def ay journée de proximité yi nga xam ne dañuy fekk ci jaamu yàlla yi yee leen ba ndax ñu yeewu ne leen nit dafa war a nekk patriote nit warul jënd sa ngor pour développement wu Kaolack démb la ñu amal lancement bi ak njàngum kaamilu alxuraan ci quartier Léona président Noël Silé addu jëmale tamit ci liggéeyu Diène ba Sarr bi nga xamante ne nee na def na ko ci Kaolack taskatu xibaar yi sampal ko bi ndax mën neen xaar coalition Diène ba Sarr ak Mariama Sarr gannaaw bi mu ko invité ci ndege mi mu fi amaloon bu yàggul ci quartier Léona. tey Mariama Sarr bu nekkee maire su Kaolack c'est à cause du ministre Diène Farba Sarr Diène Farba ici à Kaolack képp ko accepté nekk ci ginnaaw jën fa ba Sarr Ousmane d'accord na yàlla mooy fal. Kaolack sama yitte tournée bi nu mel seeti na xalif général bu Medina Baye Serigne Babacar Mbacke mu kabaro dem kaneen ginnaaw bi mu jógee leew na ngeseen. Cheikh Tidiane Diagne ba muy dem nag demeewul loxo yi nen yóbbaale na nag dund muy suukar euh, dëwlin ak lii di ceeb séddale ko euh, nit ñi waaye itam jox ay financement ci wootaay yi nga xam ne rek moo ëpp jigéen lu jëm nag ci wàllu élection yi ànd dal mu xam ne nag mooy dafa am base bokkul ak ñi nga xam ne rek dañuy jënd ay euh, nit wana leen itam ngeen ñu ñëw bootu ci gannaaw Diène Farba Sarr ñu teewlu ko ma ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne. tous les quarante cinq ans ci kaw dina fa dem au fin fond bokk bokkaani fu ñu am militant ak fu ñu amul sax dina fa dem débat social fi ay suukar fi meew fi ay financement yi nga xam dina ko jox aussi les femmes. gën a rëy gën a baax gën a yaatu nga ñee ngi bàbbeeku ñëw ku ne xam ne mjkdf 2 c'est le meilleur mouvement de tous les temps c'est un mouvement très jeune engagé et politique jeune la jeunesse c'est la puissance et sans la jeunesse c'est des mag du politique xale yi politique ndaxte politique lu mu laaj xale ku mën te ñun ay xale lañ nag ay ndaw lañ waaw vous savez que fariñ sax amuñu habitude di wax ñaata parce que on dépense sans calculer dañuy dépense lu calculer mais ku ne xam ne fii ay tonne tonne tonne ceeb a xam ne ay financement dina ko jox ay euh, la jeunesse dina si jox aussi les femmes yi nga xam ne dañuy liggéey di daan seen doole dinañ si aussi boole ay suukar dinañ si boole aussi diwlin dinañ si boole meew dinañ si jàppale jeunesse bi yëpp dinañ jàppale ñëpp durant tournée bi yëpp pendant dix jours du combat xam du combat parce que du combat donc du combat man ak ñoom gaynde ko jënd son excellence monsieur le président Macky Sall na nga moytu borom tur yi kii mooy diw kii mooy diw kii mooy xaw ma lan député wala kii mooy ministre de la république rek nga fon leen bés boo ko defee billahi wallahi yaa ngi ci juum juum boo la indil suuf yi dina bu rëy rëy rëy mbir mi du tur mbir mi base la boobu ba léegi ñu ñëw ci terrain bi nekk ci terrain bi di liggéey yenn ci ay kilifa diine ca Léona Niassène dalal nañu xelam nag xamal ko ni Léona Niassène moom Ousmane Noël Dieng moo ko moom duñu may kenn mu di dem ba dafay am dara ànd ak di xam ne moom moomee moo dooleel njiitu réew mi euh, Macky Sall ñu teewlu ko moom Omar Kata Niass ci euh, micro Cheikh Tidiane Diagne. président Macky Sall wallaahi sëñ yu bëri ñu seet bu koy bëgg ba tey jii nii yàlla Ousmane ak yéen kon li may lancé message na ko nañu bàyyi xel Ousmane bu baax a baax a baax Ousmane li ñu koy defal fii Kaolack amul kenn ku ko mën a defal li koy Ousmane liggéeyal Kaolack amul kenn ku ko mën a liggéeyal li ko Ousmane liggéeyal fii si Kaolack ak si seen amul kenn ku ko mën a liggéeyal kon na bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ñu ngi koy lancé te suñu bàyyi ko loolu waxoon ko ne ko yeg Macky mooy Makka te Makka ñëpp fa bëgg a dem kon bu soobee suñu borom Macky dem naa la ngay Makka ñëpp daan la jublu te boobu kenn yaakaaroon ko ne président Macky Sall dana doon président kon yow Macky la suñu bàyyi waxoon ñu ngi la koy waxaate Ousmane nii mooy suñu bët mooy suñu làmmiñ mooy suñu loxo mooy suñu tànk lu la wax ñu doon ko wax loo lu ma waxul wax la wala ma wax keneen ku ñëw si yow faaluwul ko la ma waxut ko a def ko defuñ ko fii képp ku fi ñëw ku dul yow ñu waxuñ ko keneen ku mën a doon nag ñoom nag sa kaw sa kanam xam leen nag soit ñi ngi seen kaw ñi ngi seen suuf ñi ngi seen ndeyjoor ñi ngi seen càmmooñ ñi ngi seen digg bi fu ngeen nekk rek ñu nga fa bu ngeen liggéey ñu ngi leen sànni ak say bu bàttee si bu ngeen ko liggéey bu ngeen ko yëgul fu toll rek ñu leen sànni ak say bu bàttee alhamdulilah ba képp ku leen bëgg effacé wallaahi azim yi yàlla dana ko effacé ak ku mën a doon na alhamdulilah kon waa ji lu gudd jaadu woon na ñu ne Ousmane mii mooy moo fi nekkal ndax président Macky Sall tey jeunes yu bëri bu ñu see bu koy bëgg yàlla Ousmane mii moo tax yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM point 1 lu jëm uh, ci wàllug uh, dund ci la ñuy addu uh, lu tollook ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay ganaar yu nit warul lekk ndax loraanga yëm ko war a jëm ko war a jural service départemental bu élevage teg na ko loxo ca marché central bu k Kaolack Nouab Yaye ci wàllu contrôle yuy def saa su ne ci marché yi nekk fii ci département bu kaw la service départemental bu élevage ak production animale jàpp na ay poulet de chair yoo xam ne kenn wartu leen lekk ci marché central bu Kaolack ci fan yiy génn Samba Thioy mooy chef du service départemental bu élevage bu Kaolack. bépp produit boo xamante ne ci jur la jógee dañuy wàcc ci terrain bi pour def contrôle bi donc euh, semaine passée dem nañ ci terrain ci marché bi comme def nañ ay investigation gis nañ ne cuisse bi commencé woon na dugg parce que gis nañ ne rupture ginaar am na forcément dafay am cuisse buy dugg dem nañ ci marché bi def nañ contrôle là nangu nañ deux cent treize kilogrammes cuisse ak benn carcasse maanaam benn nag lëmb boo xamante ni dañ ko rey ba pare te ci vétérinaire kooku aussi nanguwaale woon nañ ko arrêté ministériel 77 novembre moom mooy interdire bépp produit boo xamante ni produit maanaam ginaar la wala mu nekk matérielu ginaar boo xam dañ koy importer te amul këyit donc loolu buñ ko gisee rek dañ koy jël. liggéeykat chef de service départemental bu élevage dem nañu lakk poulet de chair yi doon jàpp. la valeur était estimée à peu près nag bi dañuy wax nañ su fekkee ne saisir nañ ko dañ ko yóbbu abattoir inspecté bu fekkee ne baax na amul benn problème dañ koy jël soit ñu yóbbu ko ñi nga xamante ni ñu ko jagleel maanaam soit prison lañ ko yóbbu soit ñu yóbbu ko centre polyvalent bii nag centre polyvalent foofu lañ ko yóbbu bañ jox ñu décharge donc loolu c'est des pièces justificatives euh, beneen bi muy cuisse de poulet loolu moom comme yoon moo ne baaxul dañ ko war a détruire lakk ko bañ koy détruire nag du ñun ñooy dem détruire ko suñu ñu ñaa ñi war a jënd ci marché yi. jox la cër nuwaab yaay dañuy desandi ak moom xam xamle na rek taxaw nañu tem ngir càmbar rek saytu lépp rek lu jëm ci wàllu dundu te nit ñi war koo mën a lekk bokk na ci rek lii di meew yàpp ak yeneen yi ni mel moom Samba Thioy ma ngay ñëwaat rek dañuy wax anam ba ñuy doxalee seen ak liggéey ba léegi ak nuwaab yaay. bu ko defee après dañuy bind benn procès verbal de destitution moom la ñuy delloowaat kilifa yi pour wan na leen ne nii lañ donc loolu pour sensibiliser rek da leen interdire te consommation bi aussi tamit dañ koy interdire te bépp produit boo xamante ni produit yi ginaar la maanaam dafay jógee ci jur maanaam les produits d'origine animale muy meew di yàpp di ginaar ak lu mu mënta doon balaa muy dugg ci benn localité war na am certificat de salubrité donc bu jógee beneen dëkk di ñëw fii wala muy jógee fii di dem war na am certificat de salubrité maanaam certificat de salubrité mooy këyit bi nga bi wala xam ne moom nga yoree bur bu garanti ko nga xam nit ki da koy lekk maanaam tey maanaam mu jëlee ko Dakar di ko indi fii vétérinaire na ko de salubrité pas facture mais certificat de salubrité maanaam xool na yàpp bi yàpp bi amul benn problème mu ne ko am boole ko yàpp mu ñëw ñëw fii Kaolack su ñëwee Kaolack kooku aussi balaa muy def dara dafa war a jaar élevage mu wan ñu ko ñu xool parce que diggante bi mën na am leneen dal ko ci donc su ñëwee war nañ mën a xoolaat yàpp bi xool lañ ko bindal ndax conforme na su fekkee conforme amul benn problème ñu defal ko vu et vérifié maanaam xool nañ ko amul benn jafe-jafe su ko defee moom mën na dem mu jaay ya produit am te du am benn problème waaye li ñuy bañ mooy nga jëlee produit feneen rek ñëw rek toog maanaam produit d'origine animale maanaam yàpp wala meew wala nen nga jógee fël rek ñëw rek teg ko di jaay kooku c'est déconseillé heure buñ dafa Ndeye Thiam dañuy des ba léegi ci jafe-jafe yi askan wi génn kaw lekk dem ca diwaanu ndax géej feebar faju ku mayul nag dina jafe lool ci askan wi ndax yokkute gi ñu nemmeeku ci yenn ci ay garab ci anam gu dëppoo lekk yoon ndax kuréel gi ah, ndax bureau national bu pharmacie yëguñu ko waaye itam syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy ah, ëmb jaaykatu ah, pharmacie yi nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax boole kook di artu nguur gi baax a jóp njëndum garab bokk ci lu gën a sonal askanuk Sénégal waaye jamono jile ñu nemmeeku beneen yokkute bu daldi kawe bu kenn xaaratoon ci yenn ci ay garab yu ñëw fi la ci diwaanu Ndar Géej lu nu mel tax docteur Ismaïla Diédhiou nekk responsable du syndicat des pharmaciens yi nekk fi ci région bu Saint-Louis dal di koy naqarlu ba fu naqarlu yem. seetlu ni depuis le 24 mai dañu am ay garab yoo xam ne dañ jékki-jékki yokku léegi ba ñu gëstoo grossiste moo ñu yi ñoo xëy yokk prix. ànd ak loolu nemmeeku moo ngi gën a fësee ci garab yi askan wi ëpp lu ñuy jëfandikoo jamono jile takkat ñi ko yokku amuñu ci benn droit ne direction de la pharmacie bi saytu wàllu njëg gi ñu benn yoon yëf yi. pour wax ni dafa am produit yoo xam ne dañu leen considéré comme ay compléments alimentaires je sais ndax dañuy wut xaalis moo tax ñu def si TVA donc de ce fait produit bi mën yokk pour ñu mën ci am retirer TVA bon. loo xam ne peut-être arranger état mais loolu di arranger état di lor population loolu baaxul yokk prix alors que amuñu droit amuñu droit yokk prix te direction de la pharmacie yëgul leen ni garab yi dafa war yokk donc lii ñu def nii teguñu ko ci yoon donc bañ ko defee donc seetlu nañu prix yi dafa jékki-jékki jékki dayoo donc da ngay jël benn produit bu daan jar 3000 francs jékki-jékki suñuy pharmacie duwaan teg ci taxe douanière am ak TVA bi produit bi revenir la à 6000 7000. syndicat yi ëmb pharmaciens yi nekk ci réewum Sénégal rawatina seen bànqaas bi. nekk ci diwaanu Ndar Géej ñoo ngi koy ñaawlu bopp ñaawlu yem tax na am na ay ndogal yu ñu jël li ci jiitu mooy ñu artu gouvernement bi ñu dal di ciy teg. produit bu ñëw ñu seetlu ni dafa yokk automatiquement pharmacien bi la koy delloo si grossiste fan yii yëpp soo gisee pharmacie yi sax garab yu bëri la ñu commencé def te loolu day am conséquence ci traitement national bi parce que donc day perturber traitement maladie te loolu état war ko seetaan parce que day yeneen maladie te su continuer ñun ñun duñ ci yem dañuy dem ba tëj pharmacie yi dañuy tëj pharmacie yi vingt quatre heures wala 48 heures pour problème bi mën a lii di faju nekk lu diis loolu ci ndodd askan wi buñ ci dollee ak yokkute dina gën a métti lool ci baadoole yi tax lii pharmacien yi di xeex askan wi ñoo ci gën a gis seen bopp Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop jaajëf Bara Diop dañuy dellu siwaat fii ci Kaolack dem seeti waa association professionnelle des systèmes financiers décentralisés di APSD Sénégal ñoom nag dajale nañu niki démb rek seeni ay clients yi ci Kaolack Kaffrine Fatick ak Diourbel ci chambre de commerce ngir waxtaan ak ñoom waaye itam dalal seen xel rek ci abor yi nga xam ne rek lebaloon nañu leen ko ndax jafe-jafe ñu jànkoonteloon ci atum 2020 Mamadou Cissé mooy njiit la mi ngi ci micro bureau exécutif bi ak administrateur yi ñoo yëwoon tey pour daje ak suñuy membre pour waxtaan ak ñoom saafoonteeg ñoom jël seeni xalaat parce que dañu toll foo xam ne dañoo soxla association bu am doole dañu soxla soxla association bu mën a jouer son rôle de représentation et de plaidoyer te lool pour ñu mën ko def dañoo soxla xalaatu ñëpp dañoo soxla xam ñëpp dañoo soxla ñëpp dugal ci seen loxo looloo tax man bi ma faloo ma yaakaar ni dama war a dem bi giseek membre yi jël seeni xalaat waxtaan ak ñoom donc Kaolack première étape la bu ñu jugee Kaolack am nañ yéene dem si yeneen ni gox pour continuer di waxtaan ak suñuy membre waaw année bi métti na 2020 année bu métti la parce que crise bi ñu am dafa wër àdduna xam nga ñun tamit daf ñu sonal ñun waa Sénégal ñun secteur de la microfinance dañuy gérer su ma ko mënee tënk couche bi gën a vulnérable ci société bi bi gën a néew doole ci société bi te ñoom wax dëgg yàlla jafe-jafe bu mel nii bu amee da leen sonal bu baax parce que dañu nekk ñoo xam ne li ñuy soxla li ñuy dundee dañ koy liggéey chaque jour bés bu nekk lañ koy liggéey bu ñu toogee ay fan liggéeyuñu day néewal bu baax seen doole da leen sonal bu baax looloo tax ñun bi loolu amee ñu jël suñuy responsabilité ah suñu client yi kat suñu membre yi soxla nañ ku leen jàppale bien que ni jàppale bi metti na suñu mais ñu def ko parce que suñu jàppalee suñu client yi ba ñu jóg si jafe-jafe bi dina tax ñoom bu ëllëgee ñu mën a continuer di liggéey ak ñoom donc noonu daal lañ fa taxawee fexe ba yombalal suñu client yi may leen ak dele pour li ñu waroon a fay ñu ne ah li ngeen waroon a fay de dañuy xaar ba jamono gën a neex ngeen doog a fay. moom njiital kuréel ga yemu grève jural na leen ko ñu teewlu ko ba léegi ak Cheikh Tidiane Diagne. bi ñu toogee ba quelques weer affaires yi activités yi reprendra mais fekk na aussi suñu clients yu bëri yoratuñu sax lu ñu mën a redémarrer waat seen activité ñu dem ni leen certes am na lu ngeen ñu yoreel mais pour ñu mën leen a permettre ngeen mën a continuer waat seen liggéey dañ leen di joxaat luy tax ngeen mën a tàmbalewaat comme ni ma ko waxee woon am nañu ay transporteurs par exemple yoo xam ne toog nañ ay weer liggéeyuñu ñooñu sax li ñuy démarrer waatee ak yeneen ak yeneen da leen doon sonal moo tax ñu demaat fekk leen suuxaat laat leen pour ñu mën a reprendre seen activité donc je pense que globalement ñun secteur microfinance bi crise boobu amee dañoo jël suñu responsabilité crise bi nag jeexagul parce que jafe-jafe yi ñi ngi koy commencé di ko sentir presque mun naa wax ci 2021 bi moo tax it dañoo soxla njàppal dañoo soxla ndimbal te ndimbal bi nag ñu ngi koy séntu ci suñuy autorité donc ñi ngi siy waxtaan ak ñoom am ay jéego yu si jot am mais yu si bëri ñu ngi di ko xaar tey suñu membres yu bëri dañoo am problème pour am accès au refinancement te loolu mooy tax mu mën a dem di lebal ñi soxla pour ñu mën a liggéey loolu challenge la boo xam ne il faut que bi jàppali ñu si am na benn fonds bu état bi mettre en place récemment muy FONAMIF léegi nag ñu ngi xaar état bi dooleel FONAMIF jox ko ay ressources pour FONAMIF mën a commencer liggéey bi parce que FONAMIF li ko tënk mooy muy mën a dimbale institution yi pour ñu mën a financer clients yi donc ñu ngi xaar tamit état bi mu dooleel moom noonu pour activités yi commencé bon banque du perte loolu <laughs> waxtaan la je pense que ni gis nañ fi ay institutions yu bëri yoo xam ne malheureusement dañoo dem ba mënatuñu ñu bàyyi te loolu wax dëgg yàlla jafe-jafe la parce que institutions yëpp ay doomu réew ñoo ciy liggéey. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew dañuy dugg ci roppalaan moom Cheikh Tidiane Sarr na koy dooree. ca Burkina Faso lañ koy dooree wax ci njiitalu réew ba ñu gën ko xam ci Roch Marc Christian Kaboré muy woote daal réew Afrique yëpp ngir ñu taxaw temm ngir jaamaarloog ñi nga xam ne ñoo di di yi waaye tamit xeex bu baax a baax lii ñuy wax terrorisme ci àdduna wërngal këpp daal Roch Marc Christian Kaboré daal soxna day xarit dalaloon na foofu la ca Wagadugu daal ca capital ba ki nga xam ne nag moo di naataangoom bi dëkk réew mi ñuy wax gana di njiitalu réew ba sax CEDEAO bu CEDEAO ñu gën ko xam ci Nana Akufo Addo moom ci ab conférence de presse boo xam ne ñoom ñaar ñu ngi ko doon amal daal moom le président bu Burkina Faso wax ne réew Afrique yëpp jot na tey ñu taxaw temm ngir boole seen doole ngir xeexandoor lii ñuy wax terrorisme waaye tamit euh, jàmmaarloog ñii nga xam ne ñoom la ñuy wooyee ay jihadiste nga xam ne dañu di lëmbe Afrique ak lu ko wër. ci réew mi ñuy wax RDC soxna Ndeye Khady benn waay boo xam ne daal milice la moom lañu fa teg loxo daal di ko tuumal ne nag dafa laale woon ci li nga xam ne moo di fat bakkan yi jëmoon ci fukki nit ak juróom-ñeent doonoon ay éco garde ci parc national boobu nga xam ne moom la ñuy wax euh, parc national de Virunga xibaar boobu nag mu ngi jóg gannaaw bi nga xam ne amaloon nañ ci ay enquêtes yu yàgg yàgg lu toll ci juróom-benn weer nga xam ne ñoom si seen bopp daal amaloon nañ ab teg loxo ko si Jackson Mouhou Kambouto ci 8 juin bi ñu génn foofule ca dëkk bi ñu wax bu boo nekk ca province bu Nord kiifu daal bu ñu sukkandiku ci Emmanuel Merode di directeur bu ñu dénk parc bu nu mel. bitim sa càdd moom bëgg-bëgg yenn ci kilifa ya moo di daal ñu amal ab penco bu mag a mag boo xam ne daal dana dajale bépp doomu réew ma ci waxtaan yooyu daal soxna ndey Khady jàppale daal nee nañ li ñu ci gën a bëgg moo di révision bi ñu wax charte bi soxal nag conseil militaire bi ñu dénk gum réew ma te ki ko jiite daal di doomu Idriss Déby ñu gën ko xam ci Mahamad Idriss Déby sa càdd daal limu ñi nga xam ne nag ñoo bëgg porte porter combat boobu daal soxna Ndeye Khady mu ngi toll ci ñaar fukki nit tànnoon fi ay ministre waaye tamit ay fonctionnaires yu mag a mag euh, di liggéey ca bitim réew ñoom ñëpp daal li ñuy woote moo di ab penco boo xam ne waxtaan lay doon képp koo xam ne daal yaa ngi ca réew mii ñuy wax càdd yaa xam sa société civile ba nga bokk politique ba wala sax ci yeneen ci ay kuréel ñoom ñëpp daal ñu toog xool nees mën a def ba yëkkatiwaat euh, càdd génne ko ci guuta gi nga xam ne moom lay dund gannaaw bi nga xam ne faat nañ njiitalu réew boo woon ñu koy wax Idriss Déby Itno xabaar bitim réew ñu jeexalee ko ci réew mi ñuy wax Amérique wax ci seen njiitalu réew ba di Joe Biden amal na tukkeem bu njëkk ca Europe muy déplacement boo xam ne nag ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax euh, gannaaw bi nga xam ne nag moom tab nañ ko mu jiite réew mi ñuy wax Amérique war naa dem ca Angleterre rencontré ki nga xam ne moom la ñuy wax euh, élimaanu jëwrin ba di Boris euh, Johnson soxna day xadi waaye tamit teewee sommet bu mag bi ñuy wax g dina dem tamit ca Bruxelles ak Genève war faa dajeek ki nga xam ne moom la ñuy wax Vladimir Poutine Joe Biden daal journée européenne bu nu mel daal ngir dalalaat bu baax a baax partenaire européen yi nga xam ne ñoom lay bokk ak àdduna bi si lu jëm ci engagement yi nga xam ne Amérique mu ngi koy jël jaarale ko ci xeex bi ñuy xeex alam bi ak yeneen ci ay dogal yoo xam ne Amérique jotoon na ko jël ngir ànd ak euh, yeneen ci réew yi xeexandoor lépp lu jëm ci wàllum terrorisme ak yeneen ci ay combat. xabaar xibaaru tàggat yaram xibaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay tey nuyu mbokku auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom di leen jaar ci àjuma ji xibaaru tàggat yaram bi nag dañu koy dooree ak fédération sénégalaise bu football commission électorale bi nag ak commission bi nga xamante ni moo yore lépp lu jëm ci recours ñoom nag installé nañu leen ba noppi ka fa jaar di maître Augustin Senghor di njiitu fédération sénégalaise bu football ma ngi ko defee nak ca makan fédéral bi nag ñu wax ni rek bés bi ñu jàpp assemblée générale bu fédération bagage bu football dina am ci diggante juróom-ñaar wala juróom-ñetti fan gi ñu dëgmal ñu fàttali leen nag assemblée générale bu mujj bu fédération bi ndeexat yi mi ngi amoon fukki fan ak ñaar ci weeru août atum tey ji lay door Turquie dina laale ki Italie tey ci ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee ballon d'or africain ginnaaw bi nga xamante ni nag jël na li nga xamante ni moom mooy Ligue des champions ak Chelsea daal di def juróom-ñeenti clean sheet ci fukki match déet kii di Edouard Mendy nag moom dafay xëccoo ak Riyad Mahrez lii di titre joueur africain de l'année nag Edouard Mendy nag nee na Ballon d'Or mi ngi ci xelam waaye li ci ëpp solo daal jamono ji moom mooy clubam ak équipe nationale Edouard Mendy ci micro rajo Alfayda. waaw comme ni ngeen ko waxee rek ak ni ko ñëpp gisee am naa ci mbégte bu baax a baax nekk ñaaxeelu sénégalais bi jël coupe d'Europe Ligue des champions indi ko fi nga xamante ni moom mooy sama réew loolu mbégte ak contentement rek laa ci am léegi nag fu mu toll nii équipe nationale moom moo ci des bu dee nag ci ballon d'or bi waaw maa ngi ci xalaat maa ci xalaat dama koy xëccoo bokk ci mbir mi tamit bu ca coow la compétition yi des na juróom benn weer am nañu objectif yi daal moom mooy club bi ak équipe nationale bu Sénégal. ñu waxtaanee wàllum biir ci soog ginnaaw ba ñu leen a yëkkatee nag ca rang de chevalier de l'ordre national du Lion démb nag équipe nationale bi ci wàllum biir ci soog ñoom nag joriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram di leen dalaloon na nag daal di leen jox seen i ak seen i prime ñu fàttali nag gaynde yi ñoo mujjee jël li nga xam ni moom mooy kaan bi ci soog bi ñu dalaloon fii ci Sénégal am nañu ku si nekk benn médaille enveloppe bu def fukki million handball Cameroun 2021 tey bu fukki waxtu ak ñaar jotee Madagascar mooy laaleeg Tunisie Guinée di laaleeg Sénégal bu juróomi waxtu jotee 32e de finale coupe du Sénégal démb Racing bu Dakar dafa ñàkk ci kanamu AS Saloum ñaari bal ci benn avenir bu Mbacké ñàkk ci kanamu AS Kaffrine ñaari bal ci dara Thiès FC am ndam ci kanamu Stade Caaxooy ñaari bal ci benn US Rail am ndam ci kanamu Renaissance benn bal ci dara jamono daal di ñàkk ci kanamu AS Pikine benn bal ci dara Tëngéej ak Jaraaf benn ak benn ñu def waaye Jaraaf moo mujj qualifié Demba Diop am ndam ci kanamu Wakaam ñaari bal ci benn Casa Sport am ndam ci kanamu Jeanne d'Arc benn bal ci dara Cambérène moom jàmbaar moo ko lapp-lapp yu métti juróom benn bal ci dara ma ngoog nday xat yi gannaaw bu la ñaanalee kandaayu jàmm li ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, li ci yéene kaay yi El Hadji Sidina Omar Cissé lañ ci halan bikum Ousmane Sonko woona sénégalais yi ak ay militant ngir ñu dajaloo niki tey ca place de la nation ngir ñu sàkku juróom-ñett ñi nga xam ne fañ doon xamal doxu ñaxtu ci weeru mars wala weesu te ñu tëj leen ci kaso gi ba léegi ñu bàyyi leen ñu génn info yéene kaay ñu ko xamal ba pare yokku ca na Sonko nag lancé na ñaareelu wàgg bi yow seetal nee na Macky Sall respecté wut kenn ñàkkanteek moom lu rek la xam maanaam génne mbooloo mu bari mooy tax ñii mu jàpp ci kaso gi mu bàyyi leen 24 heures yéene kaay mel ni ku naan woote boobu nag du Ousmane Sonko moo ko woote de fa bokk ci ñi ko woote ndax waa m mbootaayu ku jëgi ñoom ci seen bopp ñoo woote tey doxub ñaxtu ndax juróom-ñetti sénégalais ya ñu teg loxo ci fitna ji fi amoon ñu bàyyi ñëpp waaye ñoom ñu bañ leen a bàyyi loolu du yoon ba tax Ousmane Sonko ci yéene bi na far force fra force doole mbaam fañ leen di bàyyi ñu génn ndax loolu mooy kumba am ndey kumba bu ñu bàyyi kenn nañ bàyyi ñëpp te kenn jàppul leen lu mooy makki te moo leen bañ na xeex bi jeexagut fay door léegi lan la nekkee ci réew mi naan yooyu yaay fay xamal ay tournée économique ak di jël ay téeméeri téeméeri millions yu du xaaj jeex di ko ci dugal lépp ngir dalal xelam te dëkk bu mu ci dem rek fafaa nekk di xuppaate ka nappaate yokk ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange gi lépp ngir napp sénégalais yi waaye loolu du jàll de wal fajiri yéene kaay ne sonko ma ngay xartu te nee na combat bu mag bi dëgg ñëwagul sax de fay waaj rek ki waaj a dem diwaanu ndar jàpp fuuta du kenn ku ma njiit réew Macky Sall yaw seetal meeru njum Cheikh ay yéen a ne Macky daal ak ñi mu ci politique lañ nekk campagne l'évidence yéen a kaay ne man faay laajte waaw Macky bu demee ay Fuuta lan moo fa nar a soppeeku xam ngeen lu mu fay defam ñaari pose première pierre pose première pierre ak benn inauguration loolu ba njëriñ la amal askanu presque dara la deful ca diiwaan ba fuutanke yi maanaam ña dëkk Fuuta mel ni ku naan ko may ñu ngir yàlla borom dëj mën naa jooy dëjëm ci direct news nee na ña ngay xaar Macky Sall njiit ko dara la leen defalut ba tax kuréel gu mag googu nga moom la ñu wooyee Fuuta Tampi Ndiaye jiite leen fas yéene nañoo dalal Macky ak ay yëre yu xonq morso yu xonq wax ko seen naqar na ko men tampi te si men xaalaani nag men maayaay te ba yi daa dum ndax diggante Fuuta ba Bakel amul benn université wala centre bu ñu tàggatee ndaw ñi déedéet dara amul ca seen diiwaan ya yéene kaay bi ne waaye ca beneen wàll ga farandooru Macky yi APR ya dekk Fuuta ñoom it ña ngay xëccoo ngir wane mbooloo mu bëri ci seen farak Macky info yónne kaay na ko Malick Gakou ngi lay toppandoor ñoom it ñi ngi amal tournée ci biir réewum Sénégal lépp ngir fu Macky jaar ñu jaar fa yàq ko turbine ko na ko Bougane Gueye kay ti bu la tuddee sax bosom Malick Gakou nag ci laas yéene kaay nee na suñ bëggee jëlee fi Macky mboolem ñu bokk ci kujje gi ak société civile bi fa ñoo war a nekk benn kenn ci kujje gi Barthélemy Diaz ne Macky gis ngeen élection locale yi fas yéene wut koo amal de kàddoom yaa ngi ci yi ba tax mu xëy di ko laaj mooy ndax Marème Faye Sall soxna njiit réew mi fay xeex Macky ndax moom Marème Faye Sall moo nekk ci gannaaw ay rakam ak magam yu góor yi nga xam ne fa ñuy attaqué Macky fan yi di ko wax ju ñaaw est-ce que du Marème Faye màtt di ëf yow seetal bi bi coow loolu amee ba léegi ñoom Yaxam Mbaye bëri tontu na ko man boroom ay mbiram moo ma jaaxal Macky daal ay digéem ak la muy def dëgg-dëgg gi daal laaj yu bëri yu xamul tontu ci seen doxalin ki bëgg a mos nguur ak maire mooy Pape Mayel Diop nee na candidat ca maire bu point e les equ yéen kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom lii yéen kaay mooy kilifteef gu poste ginnaaw bu ñu leen tuumalee yorin wu bon mel ne nangu nañ tuuma yéde ah nee neen cinquante yi ñuy wax ne fañ ko ko am bor ne dëgg la de laneen luy dëgg mooy faatuk Abdou Faye chauffeur booy jinne bi dee ca commissariat ba coow li fi toll ni bari na ci de réew mi yéene kaay ne ginnaaw bu amalee autopsie nag lañ feeñal mooy fa takk boppam bay lange canam googu la faatoo 24 heures kaay na ko njabootu Abdou Faye gi ne du dëgg loolu amut Guy Marius Sagna na lii dee ci loxo policiers yi ci ay sénégalais fa bëri ba jéggi dayo waa rado yi yëngal nañ procureur neen seen soldaar ya nekkoon ca Mali Macron jeexal na barkaan ndax moom njiit bu France nee na mënuñoo yor kaaraange ay dëkk yoo xam ne coow la cay topp ak mbir yi na muy tëddee ak lañ cay wax amul ñu abal leen yéen kaay bi juróom-ñetti at lañ fa nekk juróom fukki soldaar dee nañ fa direct news ne voilà gis ngeen njiit bu France boobu Macron waa ji xam ne moo ko tëggoon mbéj ba bëgg a këpp gannaaw bu ñu ko tegee loxo xattee nañ ko ne chauffeur camion bi nga xam ne moo defoon accident ba journaliste ña doon liggéeyee ca leeral faatu ca moom it àtte nañ ko benn atu kaso lay tëdd libération moom di ñu xamal mbir mu yéeme bu amee ca Parcelles Assainies dakaar yow seetal benn góor jigéen daal bu tudd Cheikh Diagne moo yor xaalisam jël ay xale yu góor di leen ko jox ngir di ànd ak ñoom fa lay yónnee vidéo ak ay message yu doy waar benn xale bu góor nag moo lëkkaloo ak policiers yi ñu def ko pièce góor jigéen ba fekkee nañ ko sax ñaar yooyu ñuy jëfandikoo l'observateur na ko man it ma wax la mbir mu yéeme benn elaw daal xale bu jigéen buy def kalaasu terminal moom la jëkkëru tàntam jàpp fa ko wiole ba pare wannu loo ko lor allah waa ma ne léegi na la takk rek nga wujjeeg sa tànta comme moom seexluwul loolu wala sa tànta ñaan baat elaw buy def terminal nga terminé ko nii rek jaajëfal leen mbokk yi ñu dikk ak yéen rek ci li gënoon a fës ci jotaay xibaar bokk na ci naqar ak njaqare laskanu saam li ko war a nekkee dimanche ba léegi ndax ñàkkum ndox tar ga ñu jànkonteel boole ko courant gu dëkkee xuy xamaj ña nga yuuxu wàllu jëmale ko ci kilifa yi nank dëkk bi dégg ngeen leen ci biir xibaar yi ñeel wàccaayu élection gox yeeg goxaat yi parti bu ci nekk rek yaa ngay waajal sa bopp ak say nit nu ne la ko waa ay fede feca waa ci Cheikh Ababacar Dieng a yaa ngay fëgg sa dënn naan man waaye ndaw ya bootu ci gannaaw Diène Farba Sarr jaaxee ko ci Ousmane Noël Dieng la xam ne mooy moom Diène Farba Sarr képp mooy yelloo mairie ba tàmbali nañu seen tournée ba ñu duppee Kaolack sama yitte dégg ngeen ci Cheikh Tidiane Diagne te bitim Serigne Moussa Kane léegi kay xëy tey ji àndoon nañ ceek Seydina El Hadj Omar euh, Cissé mi ngi noonu jaajëfal leen mbokk yi ci ànd beeg teewlu bi jaajafal ko bu baax a baax moom El Hadj Libas Mbaye ñaanal leen kenn lu euh, jàmm di ko sàkku ci yéen jaajëf. Le journal. Ndeye Khady Sadio.